dal leen ak jàmm kañ rek la ñuy toog ci mim réew te waxu passeport déggatuñu ko fi li ñu déggee ci Pape Diop borom bokk gis-gis nag wuute na lool ak ñu bëri gisee ci wàllum passeport yi nag xibaar yu tàng jir a ma ak ñu caay tudd nag Pape Diop ne lim nga ëpp na fuuf loolu nga ma waaw Pape Diop mooy yebbeeku ba tey nee na itam yéen nit yi dañuy takk soxna juróom benn weer ci kanam ñu tas ko ba noppi nag dikk assemblée nationale présenté foofu ab certificat

ñori malaanu député yañ cay tudd vox populi ca Touba la des naka ak mbëkkante bi yi ku jégi def waa PDS ak seeni poñ a la nee na ko naka ñaand ak yow samay am di jàmm lañu moo tax sama xel amul xiini miini ci yow ak jàmm ji nga xamante ni moom laa bëgg mu am ci Sénégal baara dolli Mbacké naka ci biir yéenekaay bi nee na élection yi moom gagné nañu ko ba noppi critique yéenekaay naka nganuk Ousmane Sonko ak ñoñom ca Touba naka waa yeewi askan wi naka talu nañu bu baax baax Macky Sall Déthié Fall Ousmane Sonko Aïda Mbodj ak seeni ñooñ nag tànki Macky Sall naka la ñuy topp lu mu wàqi rek ñu daal ba mu teg ca Touba Ousmane Sonko naka mel ni kuy gaarwaale Macky Sall nee na moom fii ci Touba du fi wax waxu politique politique la fa wax moom Pape Diop borom bokk gis-gis ndax nee na Abdoulaye Wade moo leen diggal ñu dem ci askan wi ndax ci wàllum politique nag moom ku nekk sa programme ak say xalaat rek ngay défendre loolee lépp nag ñoo ngi ko waxee ca Touba Touba googee borom di Serigne Touba ndam la mu am ci iblis nag moom la ñuy màggal yoonu isbu tarqiya chauffeur yi ak luyeekatu oto yi ak ku jégi nga xamante ni daje na fa lépp nag réew mi quotidien xëy na du ñu ko nekkali ba mu leer nañ léegi moom leer na nañ Fatoumata njaay borom Fuuta Tampi wax na nag nee na nag du opposante te itam du noonu Macky Sall te sax na képp koo xamante ni yaa ngi koy sosal dina la porter plainte maître Assane Dioma Ndiaye ci tribune yéene kaay nee na nappaate xuppaate jaay doole naka la état bu Sénégal def ci kaw groupe des médias nee na itam daan ya ñu teg ci kaw groupe képp nag daay firndeel ni démocratie la feeñee ci bi dëkk bi woppi covid 19 temps yi day mbir ma wàññeeku na bu baax a baax waaye la soleil yéen kaay nee na askan wi moom du moyu nañ bu baax a baax bërëb ya ñuy ñàkkoo tàggat yaram afro basket 2021 ca Cameroun ak gaynde yu jigéen yi Sénégal naka fekki na Nigéria ca demi-finale ya ñu jógee Cameroun googee dal ci waat ci réew mi wax ci wàllum làmb rëg-rëg naka ci biir yéen kaay bi di suñu làmb nee na naka dafa bëgg def lu raw lu fi yax Yaxya Jóob ni def ñoo ko diggandoo jàngeen jëf ba ëllëg